Ken ku ne lamu yor bëgg ko waye mono ci jot kon mer, lila yalla jox nit ñe ko mom momo ko ndax ñoo la fal fal gogu ñu la fal xam nga ko nagit ndax wor na mo wor yalla ne joxe nga yar joxe nga itte bay nga say aajo ngir soxlaay joomu adama yi lolu mom mën na ko wat kon fo yalla dina la jappale

tegal fi nga teg sa tànk muy liggéeyal askan wi moo la war ndokk yal na ko askan wi xam waaye dama wax ne yow askan wi mënatoo leen na fay yow ndax ba nga toogee ne dama koo soxla seen xol yi yàlla leen ne an leen ak jibi caw ñu woteel la nga gañe kon moo tax nag sa lépp jox ko askan wi ndax it xoolal guddi gii tey nguy nduura ngi nii mu nga bàyyi ko ca ndareb moo du bale ngi nii mu nga bàyyi mu nga bàyyi ko ca ca ca ngir yàlla ak seen bés bii tey seen bés bi moo leen tax a jóg te am nañu ay bés am nañu ay bés waaye meer ne na fuddaay dafa bokk ci bés yi nga xam ne ci bés yi mu gën a fonk la bokk moo tax bàyyiwut kenn bi may wax dama la ne xarit yi ak soppe yi ak ñëpp ñoo an ndax kii mooy chef de cabinet tey waaye suñu wax bu nu dee wax dafa am lu nuy juñ juñ doy na boroomam xel ndax lu mel ni tey sëñ Daam Juuf mii tey amoon na ngant ndax doomi soxna la te boo demee kokki ñu nga koy def nga dem daaru salam ñu koy def waaye fi tay fi tay modi di ak kokke muy sëñ dam mi tay ma bok nu bay xel nak ne sëñ dam mi day commerce waaye ci bir commerce am gogou nak ñu am luñ ci bay xel ndax sëñ cheikhuna mbacke mom soxna Astu mbacke mom sëñ Fallu dama ne ci biiram magasin am xele bu tuti la di jaay am ben way bu mel ni mbay caw mi rek ñëw ne ko e boy wañil ma bagage way ma mer ba waji déparé mu ne eh bay sal damay commerce bay len bu nit di wax ak man gen mer tegg len sëriñ ba fee dañuy commerce lolu mo dal sëñ dam ne bay ci xel ñu ngi gërem ñep ñu ngi san ñep tant bi na fi li ci bëgg ci tiyaabo yal na leen ko yalla jox yow mi nga xam ne yow la yàlla teg nga yenu lii njàppale gi yal na la ci yàlla jàppale bu baax ci barke borom Touba monsieur le maire amatul seen fay amatul seen pay yéen waa Fudaay monsieur le maire amatul seen pay lépp loo xam ne am na ko wala mu ko wallahi la asim bu ko amee dina ko indi Fudaay ndax maire xamul kaddu bu ñaaw xam nga lu mu xam rafet ak jëf te loolu nag day suulab noon kaddu yu rafet ak jëf day suulab noon te noon amul ndax kenn rek daa am lu mu bëgg loolu la rek waaye ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi daane foofu suñu kaddu lu ci raq du moom man la te sama yéene rek moo ak foofu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf eh, assalamualaikum. li bay sal wax mat na seuk mais dama ci bëggoon tolli ñaari kaddu rek parce que dañu nekk ci guddi go xamne aussi de di guddeeg sayyidina Muhammad ñu diko magal sama àlluwa soriwul imam ngeen na ngeen ma jéggal sama àlluwa moo soriwul bay euh nyep mu nuyo ñep nuyu chef de village comme niko bay sal waxé nuyu borom dëkk bi ak imam nuyu président daayira bi jawriñ Modou ak ñi ci daayira bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bu ñuy màggal mbir li njëkk ñu war ko def mooy ñu jàngat lan mooy màggal est-ce que màggal mooy ñu daje fi wax jàng xasaayit waxtaan saafante ci bokk gi bu beut sété ñu wat kèn ku né déllu ci la nga nékkon nam baxna waye la cey gën moy comme dañ né dañuy magal ngeen gi mindé bu ñu fi joggé kèn ku nék bu fekkon da nga am benn jikko bu doppo ak jikko sayyidina Muhammad nga fexé mu nék ñaar bu fekké da nga won ñett jikko nga fexé mu nék ñent non lañuy magalé mbir manam buñu génné ci tante bi té gënu ñoo dëppale suñu jëf ak suñu wax ak suñu jikko ak jikko sayidina Muhammad nga xamné wuté wul dara ak jikko serigne Tuubaa nañu japp ne suñu gamu da naka rek amul solo li nga xamné nak sayidina Muhammad daf ko fonkon Moy dekkendo ak ak mbok lima bëgg wax fofu moy nañu def lepp ba moytu lor suñu dekkendo ba moytu lor suñuy bok dara jaru te lor léegi dafa yomb lor léegi dafa yomb trop ndax nit ki mën na jóg reer ba suur mel nii ami kolle fay wala aramtin lekk ba suur sama nijaay dugalal ko connexion 1000 francs mu nekk ci lalam ubbi whatsapp walla wala facebook am jël as gor ni moom yàbbi ko lu mel ni xeme te tegu ko fenn musiba la te kat man na ne fañu don magal na mohammed muhammad fanan fanaan jëlewu fa lu bari jëlewu fa lu bari surtout nak ñun ndaw ñi facebook baax na whatsapp baax na Waibala waaye balaa moo baax nga ci def lu depo ak li diina bëgg nga ci def lu depo ak ñi ñuy ki ñuy muy serigne touba ngay def lu dëppoo ak lim bëgg dama faral di wax whatsapp ak facebook ak mbedd mi ñoo yem li leen wutale mooy boo nekkee ci mbedd mi di def naka sudul noonu bu nit di ñëw di nga ko gis waaye whatsapp booy def naka sudul noonu ñi lay gis xamoo ñan la facebook noonu sa sëriñ mën na ko gis sa baay mën na ko gis sa yaay mën na ko gis sa wóolëre mën na ko gis te doo xam ne gis na ko mu xeeb la nag mu xeeb la lool parce que dana ah sëñ mbay mi kat xaw moo ne dina wax lii sëñ mbay mi kat xaw moo ne dina def lii nanu moytu moytu àqu dëkkandoo moytu àqu jullit man nag seen doom laa seen ab jaam laa la ma leen waxoon rek lay waxaat bu soobee yàlla sama làmmiñ wii du ngeen ci déggee lu ñaaw du ngeen ma fekk tamit may jëf lu ñaaw nguy nduur nag mën na leen ñëw na leen monsieur le maire wax lu ñaaw lii wala mooy jëf lu ñaaw lii waaye yéen du ngeen ko dégg ak seen nopp du ngeen ko gis ak seen bët incha allahu rabbi incha allahu rabbi kul ma tooñ nag jéggal naa ko kul ma tooñ daaw ak daaw jeg jéggal naa ko kul ma tooñ tey jéggal naa ko liñ ma tooñagul te nar ma ko tooñ feek may faatu jéggal naa leen ko la azim barke maam Cheikh Anta Mbàkke jéggal naa leen ko jégg bu àllaaxira yàlla bu yàlla taxawal kenn ndax tooñ gum tooñ di ko àtte du am insha allahu rabbi kul ma tooñ bu dellu man rek nga tooñ àjjana nga jëm bu soobee yàlla kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñépp imaam ñoo ngi lay ziyaar di la jox sa wàccuwaay gëm nañ ne tante bii tey yaa fi toogal Seydina Muhammad kon tante bi sa tànt la sëñ daam ñoo ngi lay ziar yow tamit da nga di kilifa ñuy ziar ñëpp nag ngeen may ma tamit vraiment ñu fàttaliku ñi nga xam ne ay woy dawlu nañu ñu ñaanal leen yàlla ngeen may ma nag vraiment ñu tudd ci turu suñu wëllër suñu soppe Baye Bada Ndiaye Diouf daaw جرجف جرجف جرجف بسم الله إمام